yemb na moom euh, wax lu la neex lay doon cest nag état bu taxawee ne nañu leen dellu ci école yi ne bu ñu fa delloo incha allah euh, conditions yi ñu soxla yëpp danañ ko fa fekk te yeggaguñu fa euh, dañuy jàpp ne ba fii ñu toll nii conditions yi ak délai bi ni mu gàtte presque quatre jours lañ ca war a gis yëpp gisaguñ ko enseignants yi ba léegi ñu ngi ci àll bi ñëwaguñu ñu naan dañuy créer ay conditions yu ñu leen transporter jële leen dakaar ngir ñu ñëw mais du ah, enseignants yëpp dëkkuñu dakaar les enseignants yëpp ñu ngi tasaaroo ci biir réew mi am na ñoo xam ne nii fi mu ne bu ñu leen dugalee aussi ci ville lañ leen di wàcce lan moo leen di jàllale ci seen village ak yooyu déjà yëpp yooyu ay conditions la yoo xam ne nii ñu ngi nii taxaw disponibilité personnelle bi rek déjà c'est un problème yeneen conditions yi ñu wax yëpp gisaguñu fenn foo xam ne nii par exemple département Diourbel bi service d'hygiène mu ne woon day euh, pompe école yi gisaguñu fenn foo xam ne nii service d'hygiène jógagul na ba dem li ñu wax mooy am na ñu liquide la des mooy état na nañu ne leen jox ay euh, machine ak ay euh, oto ngir ñu jéem a kii vu le nombre décole élémentaires de collèges et de lycées dans le département tey 4 jours ci des service d'hygiène defagu ci dara ça pose problème gisaguma ci établissement yi aussi fu ñu ne matériel sàngam dugg si na alors muy muy thermoflash wala muy gel wala muy leneen dara yëg seegul xanaa du ñu ne dañuy toog ba ñu ne suba la ñu door a fab lépp ñu koy door di ventiler à travers les étages moi je m'attendais à que avant la Korité chef d'établissement bu ne directeur bu ne jot li mu war a jot ñu mettre leen dans des conditions en attendant le retour des élèves transport Touba boobu élèves yi war a jóg dem ñi jàngi Mbàkke li ci ëpp Euh, vingt élèves par classe distanciation bi comme ni nga ko waxee mais bu ñu paree dañuy duggaat ci Mbàkke Tuuba dañuy duggaat ci kaar yooyu dañuy duggaat leneen war a delluwaat seen kër lan la ñu fay fekkaat nan ak ñu ñuy jaxasool ci biir kaar yooyu ñuy jóge marché ñuy jóge yeneen ça veut dire que presque ak situation un peu inquiétante bu Tuuba yi je me demande que Diourbel moom kaala boo xam ne nii mook dakaar ba Thiès comme ni ñu ko waxee dañuy war a xoolaat yeneen mesures yoo xam ne nii ay mesures exceptionnel la parce que comme daanaka 75 pour cent de la situation foofu la nekk waroon nañu ko sóoraale quoi ñun loolu moom ñu ngi koy bàyyiwaale xel fii au niveau du département de Diourbel parce que diggante Diourbel ak Touba benn la beaucoup d'enfants fii may wax ak yow seeni maam seeni bàjjen seeni nijaay la ñu demoon seeti Touba ñëwaguñu bu ñu bu école bu ñu nee la deux la ils doivent quitter pour rejoindre Diourbel ça c'est sûr. bu gouverneur taxawee ne bu ñu ñëwee benn euh, condition bu réunirul ca la ñu wax bu ñu jàng foofa déjà kon moom dugal na boppam parce que bu ne bu ñu duggee ci école amul thermoflash nañu arrêté bu ñu duggee ci école. Euh, gel alcoolique bi matul bu ñu jàng bu ñu duggee ci école masque yi ñëwul bu ñu jàng cest dire que kon ñun sañ nañu comme te déjà boobu dégg nañ ko ci kàddoom sañ nañu suñ école bu ñu dégg ñu ne loolu amu fa bu ñu ko def parce que aussi du ñu exposer nos collègues enseignants exposer les enfants parce que Euh, damay leen faral di rappeler toujours ne école ak jàkka yi ñu ki yoon les les lieux de culte ak marché yi ñooy des centres névralgiques yoo xam ne nii explosion fa la yombi imaginons que ñu ñëw ci benn école benn wala ñaari cas am fa déjà école ba moom arrêté na tëj na la taxoon ñuy wax foofa candidat yooyu keroog posé nañ question boobu au CRD kande bu ñu nee école bii kaa am na fi ñu ne nañ leen quarantaine déjà foofu moom cours amatu fa ñooña candidat yooyu lan la ñuy xaar ci ñoom d'ici octobre enseignant yooyu yan condition ku ci ne responsable de famille nga foo jëm ak sa famille c'est-à-dire que c'est une chaîne boo xam ne nii mu ngi nii moo tax ñu ne bu ñu demee ci école conditions yi réunirul euh, ñun waa g xam naa ni dina ñu ngi waxtaan suñu biir fii ak le 2 dinañ xool ban position la ñuy adopté parce que du ñu nangu aussi exposer nos collègues là ñu nekk dans des conditions vraiment euh, précaires.